nitu intre di série bi nga xam ne jamono bi daanaka mu ngi lëmbee réewum Sénégal ndax tur bi rek boo ko déggee sa xel day dem fu sori tey ji ñu fa yéene see ñëw def si ab jàngat bu am solo laata may tàmbali waxtaan bi maa ngi lay ñaan bu dee gan nga ci page bi bësal abonné laal cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw waaye it bul fàtte aimer vidéo bi bu baax a baax a baax ndax mooy may seen bi doole ñu jëm sa kanam seen bëgg-bëgg mooy suñu yitte chaque fois niñ koy defee décortiquage dañ koy def ci série yu nekk tey nag ñu ne pourquoi pas ñi def ko ci lii di nitu intérêt nga xamante ne askan bi bëgg nañ ko euh, série yi bëri nañ ci Sénégal waaye nit intérêt tur bi rek daf lay indiquer lu bëri ndax jamono bi ci tur bi la njëkk wax euh, si tur bi muy nitu intre mooy kenn dootu ko présenté ci ci ci réew Sénégal ne lii mooy intérêt nit nit toppee la ngir dara wala nit bëggee la ngir dara wala nit jàppee la ngir dara bëri na ci dëkk bi mooy li ñu naan da ngaa foo diw di daa foo tey nañ ci jël ab benn série tuddee ko malgré ci biir série bi nekkul à cent pour cent loolu la ñu incarné parfois da gis kenn ku jël série tuddee ko jeunesse maanaam jeunesse kase moo ci am euh, tey jii ñu jël série bi tuddee ko par exemple nitu intérêt nekkul ni série bi ñëpp intérêt la ñuy doxee mais ci biir série bi dafa am thème bu nekk thématique bu nekk te kenn ku ci nekk rubrique la jox donc ko respecté macha allah yéen yi nga xam ne nag yéen may demandé naan ma euh, pourquoi pas munoo créer ab benn groupe boo xamante dañ ci waxtaan ci thème nit intérêt bi ndax ñoom ñaar ñoom ñu ngi gérer bu am solo léegi c'est possible indi laa leen numéro de téléphone numéro de téléphone baa ngi noonu mën ngeen ma woo yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg bokk ci groupe nitu intérêt bu ko defee ma boole leen ci groupe boobu noonu saa bu épisode bi jeexee ngeen dugg wax seen xalaat wax nan ngeen gisee série bi wax nan ngeen gisee épisode bi kenn ku ci nekk tamit wax tamit série bi lan la la jàngal ndax série bu ci nekk saa bu dawee benn épisode ñaari épisode war nga cee mën a jàngat lu bëri ndax dañu ne série day jàngale di yeete waaw ndax la mooy jàngale mooy xamal la dara yeete bi nag mooy nga nekkoon ci lu lëndëm mu génnal loolu li nga xamante ne ci lëndëm parfois nit day jouer benn rôle rôle boobu ngay jouer am na ku dund lu mel noonu nan la ko wala submerger situation bu ko dundee peut-être rôle bi nga jouer moom ci rôle boobu lay basé wu pour mën a nekk ci situation bu baax kon numéro téléphone baa ngi noonu yéen ni nga xam ne bëgg ngeen bokk ci group bi boo leen bi contacter ci numéro téléphone boobu ñu dugalee ci groupe bi bu ko defee ngeen wax seen xalaat wax seen avis saa su nekk bés bu nekk niñ koy defee euh, di leen wax ngeen abonné laal cloche bi tey partager vidéo bu baax a baax ndax série bi yéen a ko bëggoon yéen a mën a partager li nga xamante ne moom moo di bi ku ci nekk mën see jot mu ji leen wax dig dajee ba beneen yoon sunu yeneen i émission analyse jëm ci série bi di leen jox dig dajee ba beneen yoon jaa ngeen jëf